alors di nuyu ami internet Dakar Buzz yëpp ñu suivre sur Dakar Buzz TV ak Dakar Buzz point net fàttewu na ñi nga xamante ne ñi ngi ci Facebook bi ak Instagram bi di leen rappeler rek ko que Dakar Buzz est disponible sur Play Store ak Apple Store mën ngeen gaaw dem télécharger ko comme ni ñu leen ko waxee rek man ak moom euh, émission boo xam ne dañuy dem fépp fu nga xamante ne ndaanaan mi ngi fa ñu dem amal ak moom waxtaan bi nga xamante ne nit ñi dinañ ko gën a découvrir en dehors ci écran bi ñu koy gis tey nag euh, ñi ngi fii nag euh, seet ki nga xamante ne ndaanaan la comme ni ma leen ko waxee saa sànq kenn dootu ko présenté Sénégal ah muy euh, Grand Laye dama koy bàyyi rek euh, mu nuyu internet Dakar Buzz yi Grand Laye nuyu nañ la. maa ngi waa Dakar Buzz di fay inter euh, yi waaye ndaanaan bi nga wax dama di jaaxal. Ah, man mi ndaanaanu lan <laughs> man Grand Laye xëy na Grand Rail mooy ndaanaan ca la muy def mais fii man fii nga ma fekk man Mouhamed Touré laa tudd hmm? yaa ngi ma fekk sama bureau fi may liggéeyee Mouhamed Touré laa tudd yéen a ma fekk direction de la promotion des droits et de la protection de l'enfant un département di ministère de la femme de la famille di genre et de la protection des enfants fii laay liggéey donc euh, ki la tax a jóg mooy Grand Laye Grand Laye bi nag xanaa lu ma dab la rek ni njëkkeewu ma woon foofu je suis agent de l'État gëm ko loolu nag parce que ak yelleefu xale dafa am solo te ci loolu la ñuy yëngu donc mais comme Grand Laye ngay laaj Grand Laye benn acteur la rek ci benn série bu ñuy wax Idole ñu joxoon ko ci rôle directeur de publication d'un journal bu tuddoon West Info tu vois ah naa loolu lañ doon doxal ci série bi loolu la gars yi doon gis laa <laughs> yéen ñi daan seetaan nag yéen a mën a xam la ci ne ba ngeen jàppee kooku ndaanaan. d'accord donc balaa ñuy ñëw si série bi rek comme ubbee nga yaa ngi ci ministère bi dañoo bëggoon xam rek ban rôle exactement lan lan ngay liggéey exactement si si ministère bi daal. bon man j'ai une profession de communi euh, de conseiller communication moom laa duggee fii mais au fur et à mesure ngay jàng métier bi liggéey bi xam li ci nekk ñu def ma responsable de l'unité mobile de protection des enfants boo fàttali ko at bi ci gannaaw euh, le président de la République avec commandité le retrait des enfants dans la rue l'exécution carrément de la tâche ci ci mbedd mi man la ko direction bi dénkoon mais c'était en collaboration ak euh, euh, la brigade des mineurs du ministère de l'Intérieur ak euh, euh le village SOS qui mettait à notre disposition un bus adapté climatisé bien banalisé de déranger kenn ak le centre Guinée fi ñu denk xale yi en attendant ñu war leen delloo seen dëkk donc ci loolu laay liggéey souvent aussi quand madame la ministre est empêchée wala monsieur le directeur ci événement bu concerner les enfants dañ may yenni ma représenter leen su ma ñëwee rendre compte mission boobu laa fi nekk. <laughs> d'accord nga nekk ci mission bu am solo rek dañuy dañ kon dañuy dugg rek ci question d'actualité ah comme euh, yaa ngi ci affaire wér affaire comment dirais-je. affaire yaa ngi ci affaire xale yi yaa ngi ci affaire sécurité je peux dire nan nga gisee tey li nga xamante ne mi ngi mi ngi am ci dëkk bi comme agression yi bëri na meurtre yi bëri na nan nga gisee loolu. waaw ni mu demee temps yi dafa tar ba jar na tiit jar na toog seetlu lan moo ko waral d'abord les causes. mais war nañ ci indi aussi saafara euh, bi si gën a metti mooy xale yi nga xam ne xamuñu dara ay muumin lañu ñu di leen sacrifier di leen rendeek euh, loolu metti na beneen bi mooy taalibe yi nekk ci daara yi aussi chaque fois ngeen dégg ci benn bu méttee métti seeni seen i wayjur dañ leen yóbbu woon foofu pour ñu jàng xam-xam jàng alxuraan jàng diine amaale fa yar finalement dañuy mujj nekk ab néew wala ñëw def leen naka su dul noonu loolu nag xam naa bu ñu ba ci biir ci waxtaan wi di nga gis ne gouvernement bi jur na ci ay dispositions yu doy waar dañuy préparer nag te exécuter exécuter gu ñu mission bi bañ ko dooree ci bu njëkk ba ministère bi moo ko yoroon. mais ni mbir mi mel ci ci dëkk bi xale yi taxawaalu bi taalibe yi yelwaan gi léegi y a de départements ministériels qui sont concernés le ministère de l'intérieur mu ngi ci ministère de la santé le ministère de la justice parce que boo seetloo am na affiche yu nekk fii ci kaw bu ñu def interdiction la mendicité am na ay loi yoo xam ne nii la loi 75 77 yàgg na ci jamonoy Senghor la woon waxoon nañ ne kuñ gis ngay yalwaan loo taalibe mu la indil xaalis nga di ko dunde wëlbati wëlbatiku di ko mbugal di ko gaañ di ko duma yoon war na la daan diggante ñaari at bu juróomi at mun nañ la teg alamaan cinq cent mille ba deux millions de francs CFA mais gis naa ne bañ ko tëralee ba léegi musuñ ko doxal benn yoon nag euh, te il y deux ans ci gannaaw am na ay sëriñu daara yoo xam ne nii euh, ma nañ juróom-benn boobu nekkoon na intervention benn coup point bu doy waar parce que en une demi-journée rek on avait 93 talibés wala na yóbbu ci centre Guindé qui a une capacité de 80 man daanaa ci jàpp ba def ci 120 ndax xale yi daan bari ci mbedd mi ñoom am na ñu jot moskaso mais daan bi ne waroon teg teguñ leen ko au lieu de deux ans jëm cinq ans foog naa six mois lañ tëdd intervention yi naa tàkkarnaase mais dañu duma gën a yàq seen diggu gannaaw yi ba pare dañ leen di violer sexuellement ça il faut le dire te man mooy li ma gën a metti xëy na du doon sëriñu daara yi mais magu taalibe yu mag yi bu ñu demee ba âge adolescent ay 15 ans jëm ko yooyu xëy na dañuy soxla seen bopp bu ko joxaleen rek jigéen te amuñ ko ñu def ko xale yi loolu dafa metti man mooy li ma ci gën a metti mais yaakaar naa ne bu ñu reprendre mbir mi fekk ñi ko war a séq yëpp ku ci nekk nga takku ba taxaw ba pare xëy na dina deme neneen leneen la ñuy wax loolu ci taalibe la xale yi mais agression yi meurtre yi doy na kéemaan trop bërki démb rek laay dégg euh, euh, ministère de l'intérieur gendarmerie police def opération coup de poing bu baax région de Dakar ak yeneen région mais sécurité boo naa ne prévention la parce que une sécurité absolue amul fenn déedéet mais il faut prévenir fàggandiku bala ngay lakkale mooy band yi dañu ami pexe mais yow yaa leen war a jiitu seen terrain ba du ñu war a mën a agsi kon xëy na ci départ bi du ma ne négligence la mais dañu dañu néewaloon euh, menace bi mais bi ñu gisee yenn rend yu métti surtout bi ñu ñëw ñu fekk Kaolack nañ leen def américain yooyu jigéen ñi ñuy woo ci téléphone nga génn ñu jàmm la paaka métti na trop trop ah, dégg naa nag monsieur le ministre de mu ngi disposition mais des na dafa war a tar mais il est bon aussi que ñu war am ay comité de quartier jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci quartier bi ñoom ñoo war a lëkkaloo joxante loxo mun a aar seen gox. jeune jeune boo xam ne defoo dara ataaya ngay def wala yéen ngi ci yeneen détail war ngeen bu ngeen nelawee bëccëg bi comme am leen activité guddi gi ngeen taxaw fàggu koñ bi mais na fekk waajur yi aussi war nañ mun a pay njëgu ataaya xale yi bañ a mën a nelaw ataaya café Touba yooyu bu ñu koy def am seeni gourdin yu baax ak seeni bagage ku dugg ci koñ bi bala nga fay génn di nga wax lu set parce que moi j'ai été directeur des ressources humaines d'une agence de sécurité daan naa def sécurité de proximité ay jeunes laa daan jël du ma leen jox fetal mais dinaa leen jox ay ay yat ak ay kuuri Baay Faal yoo xam ne nii ay ay yat ak ay kuuri Baay yoo xam ne dañ fàggandiku boo duusee ci koñ bi di wax fan nga jëm ñu gunge la ba ci buntu kër ga ñu sone borom kër gi bu la xàmmee am nga jàmm mais bu ne kii xaw ma ko keroog tama du lay pibbum danañ la làpp ba nga nooy nepp ñu soog laa yóbbu police loolu c'était dans les années 2000 2001 quoi loolu nag benn passage la bu ma jaaroon rek <laughs> nekk DRH dans le privé <laughs> avant may ñëw fii dans l'administration mais grand lay yaakaaroon ni comme sànq yaa ngi doon état mi ngi jël ay mesure mi ngi jël ay mesures mais ñun ñëpp dem nañ sax ba gis nañ ne état bi bu jëlee mesure tamit ay quelques mois après dootuñu déggati mu wax ci loolu parce que déggoon nañ ñuy wax ne dañuy jëlee taalibe yi ci mbedd bi ñu jékki-jékki tamit déggatuñu ci loolu yow mii nga xamante ne nekk nga ci état xaw nga leen jege lan nga mën a wax ci loolu. waaw non loolu loolu décision état la. mu jóge ci njiitu réew mi mu joxe ndigal démembrement état bi mooy ministère yi xëy na bu njëkk nañ ko jëlee woon lañ yaakaar ne moo amoon ay manquement yu ci manqué moo tax bi yoon ñu yaakaar ne buñ ko waree jël war nañ gën a fàggandiku bu fekkee ñun ñi itteewoo xale yor seeni mbir dañoo jiite mbir mi mbir mi itam mais euh, fokk police am ci yoon parce que daan nañu def ay intervention ci mbedd bi di jël ay taalibe ay civil yu seen yoon newul ñoo di bëgg a daal seen kaw lu tax ngeen def nii nangam nangam nangam bu ci police bokkul du sotti ñoom ñooñu daan aaraale mais ils étaient toujours en civil euh, xale aussi jàpp ko yóbbu kaso du foofu du mooy cëram mais am nañ ay bërëb yoo xam ne nii fa la ñuy denc xale yi ñi nga xam ne fii la ñu dëkk dinañ woo seeni i wayjur wala seen i mbokk waxtaan ak ñoom. ba eh, ba déggoo ci mbir ñi nga xam ne nag moom bitim réew la ñuy jóge surtout ay dëkk yi ñu gën a taxalool frontière fi mel ni Guinée Bissau mais yenn ay Kolda yu kenn xamul nit ñi mooy sax samba booy buy jógee ci dëkk ba kër gu mu romb ndax amoo xale boo ma jox nga indi leen fii di leen yelwaanloo bu yelwaanoo versé mu mat nga soo ko jox ndigal mu dem yelwaani lu mu lekk te koppar moom lay indil du ci togg yéen lu ngeen xewloo te loolu su manqué mu duma la duma yu metti metti mooy dóor yi leen dóor seen yaram yi dàgg loolu daf fi war a jóge c'est malheureux mais pour loolu mën a jóge ci Sénégal gi fii dana jafe ndax dañu am aada génne sarax sëriñ yi waxuma nag sëriñ yi nga xam ne ni mate nañ ko waaye ñiy woote maamante mënuñu dara tey dóori marto di la ay sarax yu dul dakk defal lii defal laa nangam nangam ngay ree sa bopp ñooñu la sëriñ daara yi yalwaanloo xale yi di ñooñu dañ soxla 500 francs par jour boo amee benn cent taalibe dafay nekk 50000 bu weer bi dee trent jours yi 1 million cent la exemple ma la jox fii benn taalibe mus nañ koy dàq mu sànni xeer. mu dal ci benn parabrise oto parabrise ba toj mu rëcc ñu ma leen xàmme naa ko ci koñ bi lay ñetti fan ma ne ko nuus te liggéenti ba woo sëriñu daara bi bi mu ñëwee 4-4 la gaare wàcceeg jesner nuyuwuñu sax lu xew lan la ñuy wax ak moom mu ne lu mu def ñu ne dafa sànni xeer ci parabrise oto bi mu toj bon oto bi génn lu mu laaj ñaata lay jar bon oto bi ne ko cent vingt mille mu génn kalbem baatare cent vingt mille jox ko jàpp ci loxo ndong bi dem ak moom kon dañ ciy liggéey c'est ce qu'on appelle la traite c'est la traite des personnes le proxénétisme aussi c'est de la traite ñuy jël xale jigéen di leen sàmm fii ñuy jaay seen bopp di leen verser am na fi si dëkk bi yenn mbokk ñàkk yi ñoom dañ ko fiy def wax ji man du ma ko ragal de parce que noonu la demee nañ waxante dëgg waaw dafa am yu nekk ci réew mi yoo xam ne ñun xamuñu ko moomuñu ko dañ ko war a defar dañ ci war a wax mais gouvernement nag moom moo moom doole ji moo am ay organam yoo xam ne nii ñoom ñoo am mission boobu daf leen war a jox mission ba pare dooleel leen ba pare aar leen askan wi ñi yee ñi nga xam ne ñoo yeyoo di waxtaan ak askan wi di di leen yee di leen gindi ci ci lu nekk ñuy wax li nga xam ne mooy dëgg te mu rafet mais médias yi dañoo bari lool te kenn ku ne bugg nga ñu déglu la pour ñu déglu la nga foog ne wax njaaxu moo tax nit ñi déglu la te loolu musiba la lu ci bari yàqu na médias yi ñoo ko yàq même ñii bind sax parfois da ngay gis benn ngandem titre fekk ci biir dara new fa pour mën a jaay journal yi mais nag réseaux sociaux yi nag ñoom ñoo toroxal journal bi jar ñaar fukk ba dootul jarati moo tax it ñoom itam da ngay waaru ko waxuma ñëpp de waxuma ñëpp ah ñu dañuy xool réseaux sociaux yi dañ ci nekk te comme man xam nga ci film bi sax moom mbirum mbirum journaliste lañ ma dénkoon ca waa kon xam nga dama ci xaw a xam aslëf daal mais réew mi daal laaj na ñaan mais laaj na aussi kilifa yi ñu jóg ci man suma doon su amoon doole ci réew mi ci lu ma demee noonu mbir mi dinaa jóg sol suma daal en tant que njiitum réew du lu may siiwal dama koy dox guddi kilifay diine yi ne yi fi nekk kenn ku ne am nga tarixa boo bokk boo jiite may wax ne lépp solo mooy diine ji dina islaam bi banq euh, mooy garab gi banqaas yi mooy tarixa yi kenn ku ci ne nga dem seeti ko waxtaan ak moom won ko ne ko dëkk bi ni mu demee doy na waar dañ leen di ñaan ngeen téye seen course ngeen ñaan jàmm pour réew mi am waaye ngeen def ay communiqué wax ak seen mbooloo delloo si leen ci ci xel ak xalaat bu rafet am lu ngeen leen sas benn su ko defee nag buur su boobaa moom it dana jël matukaayam bu baax a baax a baax a baax a baax képp ku wàcc yoon ñu teg la ci yoon te bàyyi par parloo bi ak ak maslaa bi parce que bu ñu naan pen de mort peine de mort man ànd naa ñu de. dama gis benn vidéo ñu yónnee ma ko mu jóge ci pays arabe yi ñaari xale yu góor ñu viole ay xale yu am dix ans bi demee ci tribunal bi juge bi àtte mu ne on va le sectionner le sexe maanaam dañuy dagg awro bi mais ci saa si moom dama gis mu jóg ci vidéo bi mu ne yóot paaka bi kenn ki tubéy ji bi ñu ko tegee ñaari pungal ko téye mu génne bagage da ko dagg sànni ko fee barke Mouhamed lu leer laa lay wax kenn ka ca des xam naa dafa tegle woon mbaa mu ngembu léegi waa ji yàkkamti na loolu dagg bagage yi mu ngay xiiti xiiti ca jiin ba foo tollu dégg baat bi mais fii ku fi defoon loolu am sa doom di ko laax di yàq doomu jàmbur bu ñu daggee loo xam ne dootoo ma sa jigéen ci àdduna bu ko xale yu góor yi dégg nañu téye seen tubéy te jigéen ñi dañoo ëpp góor ñi kon lan la ñuy wut ci xale yu ndaw yi am na jigéen ñoo xam ne nii moom ku leen ne na nga yendoo rek la laaj ñenn ñi dañuy dox guddi def ko liggéey boo soxlaa si bopp nga wuti ko fa bu fekkee dañoo feebar ñu faj leen mu fekkee nag non ban faj la moo ci nekk paj gi dong lenn rek moo ci nekk il faut karwaas gi saf correction rey nit. ñu jàpp ko fii ni ko tuy rey wane ko ci ci télévision bi gaa yi gis ne kii ko daa rey ñu rey ko kon ñii rey dinañ xalaat leneen lu ñuy ñaari yoon du ñett ku defati gone noonu itam ñu leen si tube ñu ne ko nàmmit dagg ko fee dootoo mos jigéen ba ngay laal sa ndeyjoor bi foo naa ne gaa yi bari ñu sàkkati gone dinañ ko seet yooyu dafa ñaaw surtout réew bi fi mu toll Sénégal dafa nekkoon ci jamono dëkk bu ñu tegoon bët bu ñëpp soppoon bëgg ko ndax li fi nekkoon ci yar ak teggin président yi njëkk yi fi nekkoon xam nga ville de culture ville de diine xam nga léegi jaxasoo trop ñu war ci wax mais askan wi seen jëm bopp itam parfois on est fautif dañuy toppandoo lu xew ci réewu jàmbur ak feneen te ñun moomuñu loolu loolu rek moo ñu tooñ mais buñ ko tegoon ci yar ak teggin ak diine ak nangu kilifteef am fulla ak fayda dëggu tey dëggal jub di jubal réew mi dana jëm kanam parce que kenn ku ci nekk da nga ci war a béy sa waar loolu moom mooy dëgg mais ni mu demee fi ne nii doy na waar trop trop trop. Ah, doy na waar trop. <laughs> donc dañuy ñëwaat léegi rek ci euh, ci série bi ah Idole ndax yaakaar naa ne sax Idole moo tax ñëpp ñëpp gën la ràññee ah Idole lan nga def nan nga def euh, balaa may ma lay laaj nan nga def ba dugg ci série Idoles sax depuis kañ nga commencé di def cinéma. man avant may def cinéma dans les années quatre vingt laa commencé di def euh, publicité spot publicitaire acteur de spot publicitaire parfois tu vois vidéo bi jàll à la télé wala ñu woo ma pose photo pour un truc ci tableau yooyu laa njëkke ba foo naa ne idole bi itam day dañ ma woon ci benn spot publicitaire ñu def spot bi man ak ta Moustapha bi nekk ci idole ñoo nekkoon ñaari acteur principaux yi warga la woon mu di ma xiimal ma tëdd den ak sama soxna ataay ji neex lool lowal jàll deuxième bi jaar affaire bi xaw a yàgg gisuma dara ma ne ko ay eh, ana ataaya ji mu ne ma jeex na ma ne ko mënul jeex ay ñett la mun ne ma non non ma ne ko bii moom lëwal deuxième troisième ba tarxiis la mais xam naa ne ki doon euh, filmer boobu jour boobu le producteur et réalisateur de Idoles ci boppam moo yoroon caméra di filmer ku ñu ay buggee mu tëdd di xool di ree rek après liggéey bi pare na. deux jours trois jours après ma ñëw ñu fay ma suma koppar ma dem ñu toog ay weer ñu wooma ci casting ne ma ña nga defaloon publicité ba fee ñu am benn film bu ñu def ñu soxla ay acteurs léegi nag comme ni ngeen def nii rek ñu dugal ma ci saal te tegal ma lumière yeeg ak micro xam nga gars yi dañ lay laaj nga wane sa bopp xam njortu ma woon nag ne am na caméra cachée. waa di ma laaj j'étais très sûr de moi est-ce que tu penses pouvoir remplir le rôle de idole euh, le rôle de Grand Laye ma ne ko Grand Laye c'est moi mu ne ma quelle prétention ma ne ko non c'est une certitude si je joue pas rôle de Grand Laye mu ne ma ne ko non vous n'aurez pas un autre Grand Laye <laughs> c'est après que lañ mais raconté ñu dem ci waa ji ne ko mais li nga woon góor gi dafa gëm pa mu ne j'ai vu d'autres gens qui prétendait pouvoir remplir le rôle de Grand Laye mais parfois seen démarche ma ne non du li laa soxla wala ñu wax ma ne am na lu des mais góor gi bi ma ko gisee mu ci publicité bi rek j'ai eu des des frissons parce que dama am lu ma sentir ne kii jombul mooy kii may seet moo tax bi casting bi jotee may leen woo leen ko bi ngeen ko woowee aussi je pense que vous n'êtes pas déçu on m'a confié le rôle de Grand Laye ma ñëw aussi au niveau de ma direction ma négocier ak suma directeur war ko ne am naa ay parfois ay euh, change de de tournage il m'a compris yàqul dara ci suma liggéey suma liggéey waa ki laay dem ci tournage parfois naa fa nekk ba minuit passé wala une heure du matin c'est pour ne pas yàq dara ci liggéey bi te ñoom itam ma jox leen jot ba mët sax 18 heures ba ba zéro heure xam de daal di tane am na solo loolu mooy law di law di law mais rôle bañ jox grand laay ca biir na doy waar lool. bi la joxee role bi mbaa tiitoo woon rek nan nan bi la joxee ba nga commencé lire personnage bi et tout ban ban réaction nga am. xam nga dañ ma jox le scénario bien volumé la may lire di gis ak texte français bi neex lool soxna suñ daan wax nday taxawaalu aminta su fi jéey moo doon bind texte yi français bu limpide waaye bu neex a neex moo ci newoon déjà loolu rek euh, nekkoon luy tax ma war a sawar ma gis ne dina wuute yenn série yi nga xam ne wolof la ñuy wax mais bii bu ci français bi duggee parce que journal la donc journalisme c'est des écrits c'est des c'est des communications te yëpp français la war a doon am na fu mu war a tegu ma xam ne beneen cible la donc il faut nga yéegal niveau bi mu àgg fa parce que li ñuy def ñun je peux dire c'est du cinéma ndax ay série télévisée la wute naag théâtre bi nga fi xam ne moom lañ fi fekkoon moo tax gars naa ñu seen seen théâtre bi dafa bari tubaab trop quoi ils n'ont pas compris mais su bariwul tubaab du mun a nekk international muy benn tiituma parce je suis un agent administratif te jot naa am ay ay rôle de directeur de ceci directeur de cela nangam nangam ci ay agence wala ci ay officine donc euh, bu mu ñëwee foofu ñu jox directeur de publication c'était une première peut-être mais ma sol mbubbu euh, directeur de publication d'un journal comme ni muy doxee donc euh, le personnel était là tonton Sène en tant que rédacteur en chef euh, les desks étaient respectés siège bi nekk fa machine yeeg yëpp donc vraiment comme ça se passe dans un journal avec tout le matériel tout le personnel qu'il faut moi j'étais là commande mais rôle ba doy waar lool. foofu laa jëm <laughs> rôle ba doy waar lool grand laay gis nañ ko grand laay ak margo grand laay ak xale jigéen ñi ci biir idole daal grand laay moom moom daal foog na ne xale bu jigéen bu rafet rek pour moom la. ah loolu nga foog. ah mais grand laay loolu nga doon def nag nu mu fa demee. non grand laay day góor gu baax la bëgg lu baax <laughs> te yéen xale yi macha allah xale yi rafet nañu loolu ca départ ba sax xale yi taxuñu moom ma jóg de ñoom xale yi itam parfois dañuy def ci seen cukkel bi ne. góor gi xëy na am na nu may def ak moom lu ma koy won gone yemuñu jombul mu mu faral ma wala mu bàyyi ma xel di ma di am yu may baaxe ci pet ute naa ñenn ñi nga xam ne nag xëy seen kër liggéey si weer dee ñu feyeeku dem rek la seen kër moo ca nekk ñii dañoo am ay boroom kër ñenn ñi aussi xëy na yarewuñu leen noonu waaye gone yi tey am na ci ñoo xam ne dañoo wow bëtt te ñeme pour teel a àgg ci kaw rapidement rek jaral na leen lu ne moo tax bu leen chef bi làmbaatoo aussi dañuy daal di bàyyeeku. Margo ngay gaaru waale de. gaaru waale wu ma kenn de en tout cas gaaru waale wu kenn dafay am bon man je n'ai fait qu'interpréter un scénario luñ ma woon ne loolu mooy nekk foofa yow yaa war a doxal nii mun a ma ne ko aha ma xool ko jàng ko ah ma doxale ko niñ ko bëggee. te foog naa ne gaa yi meruñ ca parce que promotion canapé jaar na fa ngoro ci biir liggéeyukaay dafay am te parfois yàq la la indi ne gis nga ba muy door ñàngu lool waaye ba mu demee ba ca kaw mu gën a tàkkar naa si lool indil na ma ci jéye ju bari coow lu baree baree bare bëri hmm? yéexee nee nañ deretu téegal du mooy lupp borom <laughs> musoo ko dégg waaw wolof la <laughs> bu ñu lay jongal bu ñu day dara ji ne cis foog mu takk ci pooj bi donc waaw ah am na yoo xam ne warul kilifa kilifa dafa war a mat li mu doon moo ne ci kaw boo yilifee ay doomu aadama ñu liggéey yow ca la nga woote ñu indi seen xam-xam la ñu yelloo moo di nga jox leen seenu payoor jox leen cër yërëm leen jàppale leen mais c'est pas parce que da féete ci kaw rek kii soxla na liggéey bi nga xaw cee noot di parfois nga woon ko ne ko boo nanguwul def ak man li ma bugg sama dàq la wala ma daal lay mbugal mm, xëy na yaakaarul feneen ne bu dee ku jàng ami diplôme gëm boppam du la faale boo ko ne benn mu dem yoonam uti lu yiw mais ñenn ñi nga xam dañoo bëgg lu yomb itam ñu fa loolu rôle boobu margo moo ko interprété maa ngi ciy jéggalu mais melul noonu moom Margot ku timide la daf ma rusoon ndax dëgg yàlla du xippi xool ma mais ka bu ñu jugee ma ne ko eh da dal ci man bu baax rentre na ma ba man kay moom mujj naa yàqu fu ma mbedd bu ma génn meer na ana Margot jox ma ko ma duma ko xale boobu moo réew yow si kilifa ma ne ko mag bu wàccee àndam hmm? kilif teef mu yeyoo ba ko yàlla jagleel mu teg ko fële di def loo xam ne nii waru ko maanaam njublan ak ci caay-caay ak ak mooy yàlla du sunu cër kilifa dafay mat lu mu doon aar njabootam njaboot gi mooy le personnel seen àq ak seen yelleef mu leen ko jox te benn nootaange bañ cee nekk mais li ma ci jaaxal nag bi mbir mi dawee daw ba mu yàgg wàcc naa fii ci bureau bi di ñibbi benn 4-4 ne ñuut ferende <laughs> wàcce vite bi grand laay tu n'es pas sérieux ma ne ko pourquoi mais non non non mais ma ko lu tax mais foo jàngee journalisme ma ne ko lu ci yoon mu may yàq nga suñ affaire yëpp ma ne ko ah, man directeur de la ma ko ah kon lii ma wane da koy def xaw ma ki dara ma ne ko ah kon kay moo tax affaire bi dal. <laughs> dafa mel ni idole réalité rek réalité la ngeen di ngeen di joué voilà comme ci ci réalité bi lañuy des ba tey rek. corruption bi nga xamante ne mi ngi ci du ma ne si euh, patron de presse yi mais mi ngi ci société yëpp mën naa ne loolu nan nga ko gisee ab si biir idole bi ak euh, ci dans la vraie vie fait. su may tigi journaux yi di gis OFNAC épingle na kii Cour des comptes épingle na nangam nangam mais njublan gi dafa bari jubadi gi dafa bari. te fu mu warul nekk rek lay nekk ba ci biir organe de presse yi organe de presse yi man suma diggante digganteeg ministre Mal moo di ministre la waaye xam-xam ba bariwut jàngut di gis ay ministres yoo xam ne jànguñu mais dañu am li may wax un bétail politique un bétail électoral am nañ mbooloo mais mbooloo mi. ah toppewuñ la dara du dul alal budget bi ñu la jox nga war a liggéeyal askan bi mu war caa yem mais non da ngay xaabaabal fañ koo xayma pour mu war a tabax hôpital wala école wala ay yoon foo nga am loo ci coppati pour neexal say militants pour saa yoo wootee ñu wuy si la woote wuy si la boobu mooy président bi saa yu ne nii mobilisation nga joxe kaar yeeg t-shirt yooyu nangam nangam ñu ne yaay waaj parce que fii dañu nekk président pare nekk dañu nekk chef de parti pare nekk le président en même temps donc politique bi dafay influencer trop te nit ñuy defee politique ci Sénégal man day bu ma naroon dugg ci politique du man maay woote mbirum xaalis danga leen di woon ne leen mbir mi lii la jaarul yoon dañ ko war a jooyanti jubbanti ko mu tegu ci yoon ba kenn ku ne mun cee gis sa bopp aw ma benn dërëm bu ma yëkkati ko di ko jox kenn muy nangam nangam nañ bokkandoo xalaat bu rafet yéene bu sell am fulaak fayda jàppalante te wut lii nga xam ne mooy réew mi ñu yor ko teg ko delloo ko ci yoon loolu moom mooy dëgg man bu ma doon politique xam naa duma bari militant ku amul fois ak am engagement doo mën a ànd ak man parce que koppar bu may luxus feneen di ko joxe awma ko loolu moo waral ñu ci bari dinañ daanu c'est de détournements dem ci bi te militants yi kat ñoom booy joxe boo gëjee joxe ñu woon la gannaaw seeti keneen ku joxe lu bari yooyu nag comportement bi ci askan wi la mais malheureusement par Sénégal ba mu Sénégal ba léegi politique yëpp noonu la demee politique xaalis la amuñu gëm-gëm moo tax réew mi mu doy waar ñi fi nekk ay kilifa yu jub neew ma aw ma fi waaye bariwut nga baal ma quoi mais. non mais c'est vrai ku ci nekk kilifa ne ci bi rek la ñu la dénk pour nga doxal liggéey bi yaa ngi koy coppati pour militants yi bañ a daw bu dul parce que loolu lañ lay toppee ñoom itam dañoo war a xam ne yow da nga am gëm-gëm ci dara mooy mbir mi jaar yoon pour kenn ku ne gis sa bopp kon ab taxawaay la laaj lëkkaloo jàppante xeex injustice bi xeex yi nga xam ne du dëgg te mu war fi jóge parce que réew mi loolu rek moo tax mu avancé xam naa du gaaw parce que daf fi sànkar politique de l'argent boobu déedéet xoolal ci élection yi t-shirt junni dugal la ci oto sandwich ba nangam nangam mais non mais c'est extraordinaire pour des milliers de personnes loolu mais c'est de l'argent ça c'est des milliards fu mu jógee après nag y a des problèmes dañ koy dépenser foofu ba pare bu ngeen faloo budget ba taggatémbe ñu war ko dab nag nañ yokk fi yëg nañ yokk fee kërëng kërëng askan wi nag jóg yëngu mu indi nag loo xam ne nii eh, complication la parce que saafara su jur jàngoro lay doon day indi complication fexe nga ba falu mais lu tax nga falu dangaa jënd nii da nga ger léegi nag xéewal bi fi nekkoon pour askan wi war ko jëriñoo wala pour nga liggéeyee ko mbir mi newatu fa ngay taxale nag teg ko nag ci deru ñi la faloon ñu fipp ñooy gën a riche di gën a baat waa di gën a ñàkk rek yàlla na ci yàlla musal ñàkk moom jigul gor mais itam xale yi dañ bëgg lu yomb parce que liggéey amul liggéey amul liggéey man mun ma comprendre munoo amuloo métier par nga bëgg am liggéey jàngil yàq say morom xale yi jàng yow ngay dem géej wala ngay daw def leneen mais examen bu jotee composition bu jotee nga daw examen bu jotee doo doo bi dara ña ña daan jàng ñooy dem ba ca kaw am diplôme bi ñooñu donc war nañoo mën a sàkku liggéey parce que mate nañ ko xam-xam ba mais bu la loolu rëccee mais du njàngum tubaab rek moom moo tax ngay liggéey. métier ngi fi amul benn métier boo xam ne ni soo métier la wàcc raxasoo yooyu yëpp dama gis ay jigéen ñu yor garage mécanicien te anuñu léegi macha allah ay exemple lañu mais euh, yow yaay am jom xam ne lii laa mën a def naa ko uti lee mënuma ko teg ko fa mais nga xëy ñax waaye di toog maire bi weccet bi bu jógee marché jënd la ci dose bu ñaari cigarette tu yooyu su demee ba manqué nangam nangam nga génn ci biti yaa ngi commencé am doole yaa ngi daw ci géej gi dugg ci saal def nii da ngay dajeeg dox bu mel ni man sol costume bu baax nga ne ma eh, ay ma xool li nga yor man la lan laa yor beneen gaañ taxawale doo ko jox ñu sotoo la la duma la nangu li nga mais non loolu lu ma fa war a jeex yooyu ma fa war a jeex donc réew mi daal il faut que ñun ñi nga xam ne ñooy askan wi te néew doole ñoo war a seetaat sunu toog sunu toogaay ak sunu doxalin. sinon li ma gis jëmul kër de. am na solo ah dañuy delluwaat ci Grand Laye rek ci biir këram comme que jógee nañ West Info dañuy dem biir kër Grand Laye ndax Grand Laye nekk na këram yor soxna bu bari affaire lool. Raïcha la grande royale. mais Grand Laye noo doon dundee ak tamit da nga koy da ko gate woon de. waaw euh, Raïcha. suma soxna la mais suma xarit la <laughs> lu tax mu yomboon aussi bii du première fois ñu joué ñu ñaar entre mari et femme def nañ ko ci yeneen yi ay film documentaire ko waa mais nag c'est une très grande professionnelle qui a appris le théâtre qui a été à l'école du théâtre contrairement à Grand Lac qui n'a pas été à l'école du théâtre man ja loolu yëpp jànguma ko fenn. benn yoon rek laa mos a def benn séminaire de formation de directeur d'acteur en trois jours ma am ci benn benn attestation wala ne j'ai suivi la formation mais et une manière rek xam naa pour mm, li nga xam ne yàlla jag na la ko pare nga xam noo koy agencé ak noo koy ordonné loolu la mais xëy na loolu mu ngi woon ci yaram bi ba pare moom bi ñu dajee dafa incarné la femme sénégalaise bëgg xew bëgg gis leen ma bëgg buzz comme seen seen seen affaire bi nu mu tudd waaw dëgg waa ñoom buzz lañ bëgg la ma fa def toj naa xew ma maa def nii maa def naa nangam nangam tu vois bu kii demee romb la ak oto bu baax yow kii fu ah kii de dafa tebbi kii de moom affaire baax na yii day dem Dubaï day dem Suisse day dem nangam nga bëgg ci dugg yeneen ci ay natt yeneen ci yeneen bon genre femme boobu moom la woon mais malheureusement xam nga rek boo boo na bee sa soxna bëgg ko lool itam te bëggoo lu ko naqari lu mu la wax nga ne waaw tu vas en faire une reine ah da ngay dem ba la nga yeyoo muy sab salaire bu weer dee dafay manqué ngay taxale fenn nag pour di ko bëggal. est-ce la dugal tamit ci tooxi doon yi moom la waaye moomu dugal ci affaire bi waaye yow ah ah dafa metti gis nga ay xew xewam ak yu kenn xamul ànd ak Adja Adja moom njublang boobu nekk ak moom di ko sol xel ah bi fii di dafa xaw a ras. fauteuil bi non man bëggatuma sax couleur bi nañ ko changé nañ sa suma oto et puis sama doom utal ko oto parce que sama oto bi mu jël arrangé wu alors nga nekk ab yàmbar waaw parce que bu bëgg nga sa jabar te sa doom aussi sa xol comme ni doom bu jigéen ak baayam gis nga ni ñuy mel Binta mois moi c'est extraordinaire nous sommes devenus père et fille film bi lañ xamante mais léegi woon na man baayam laa moom sama doom la ni baay ak doom di bëggantee noonu la bëggante ñu mu lu wér vrai alors donc euh, ma commencé nag wàcc ci yoon éthique et déontologie bi nga xam ne moom liggéey bi laaj ñu commencé dañuy wax dóor marto am kilifa goo xam ne ni moom ku di lañu jox ko koppar yu bare bare bari du def lu dul njublang te bëgg ko koy làqal c'est la presse moo tax la presse war nañu xam ban journal la ñuy lire ak li ñuy liir lu mu parce que parfois am na yoo xam ne dëgg la yenn yi après dañu naan rek même ci film bi sax am na nu ma def waa ji man ne ko eh, tonton seen na ma mais non amagoo ci benn la preuve ma ne ko mais yow léegi ay résultat yu yaa loolu jaayal journal bi xale bay réer ñu naan ren nañ ko ren ko nangam nangam mu ne ma ne ko boobu la ñuy wax mu ne mais amaguñ ci lu leen ma ko da ngay wax ba gis ba gars yi jënd journal bi bu fekkee la nga wax méngoowul ak ni mu nekkee nga indiwaat rectification ci suuf technique de journalisme la il faut euh, une grosse information à la une pour gars yi mun ko jënd fekk boo demee ci biir dara neew fay caaxaan la donc waa yooyu yëpp a ci biir euh, donc euh, bëgg suma jabar mu bari salañ salañ lool bari bagage ba dugal ma ci lu xóor topp bànneexam ah ma di liggéey benn kilifa goo xam ne it moom itam ku jubadi la lool di xàppati xaalis bu bëree bëri bëri bëri bëri di def ay bagaasam bëgg nag toujours mu nekk à la une bu tooy ma koy assuré mais ça a un prix mu di ma joxe koppar waaye eh, xam nga doomu buur ak doomu baadoolo la monsieur le ministre moom doomu buur la journaliste bi doomu baadoolo la moo tax moom bañ nga jàppee benn guddi lañ ko téye ñu ba ko mu dem man ñu tëj ma ci kaso ba. <laughs> <laughs> Raysa kay dafa ñëw ñaan sama baat benn yoon la ñëw ne ma may ma suma baat man nax neexal ne ko man de ñu ma seet si yëpp sa bos moom ma dàqal foofu di ma ci kontaane mu ne ma nga ne lan xam nga lu ma indi woon mu ma nga may ma sama baat man nax neexal de waaw moo tax ma ne ko bopp beeg loos weeg tànk yëpp jël ma may la <laughs> yombalal ko ko <laughs> affaire mu jeex ah. <laughs> donc euh, est ce que mën nañ xam rek euh, Grand Laye lan mooy lan lan nga xalaat ci cinéma léegi nii parce que gis nañ affaire bi am na évolution gars yi ku nekk yaa ngi joxe say idée yaa ngi yaa ngi bay sa waar ci cinéma bi au fait. Hmm. waaw évolué na parce que bu njëkk ca théâtre bi ci rajo bi da daan door daan dégg ma ko lu jógee de taxi El Hadj Mor nekk. Alaaji Mor Mbay Kokki paa ma xamoon ndeysaan paa bu nice bari xam-xam moom moomoon taxi ba mais diggante moom yi moom taxi bi ak chauffeur bi versement yi ni mu daan demee rajo lañ ko daan déglu ñuy dem ba théâtre euh, gars yi di ko def ci télévision bi léegi nag foo naa ne théâtre mu ngi am ba tey mais euh, dañu évoluer dem ci cinéma waaw mu nekk série télévisée comme ni ñu ko defee Europe États-Unis ci yeneen kii yu mag yi gis naa ne donc évolué na parce que ñi ko njëkk a def ci Afrique xëy na Côte d'Ivoire laa gisoon ma famille agrandi nañ ko def ko ma grande famille ñëw nañ fi sax jël ay acteurs sénégalais ñu joué fi ay trucs ba mu daw à plus man mi sax tànn nañ ma ca ca ña doon joué def ma commissaire de police <laughs> <laughs> Monsieur le commissaire ah tu donc vu donc ça s'était bien passé euh, lu am solo la pourtant mun na nekk source d'emploi pour jeunes yi ñi nga xam ne yëpp seenu njàng lajj na wala ñenn ñi amuñ chance jàng am na loo xam ne dañ ko judduwaale yàlla may leen ko ñi saf nañ xorom ñi mun nañ jël yi mun nañ def leneen mais su amoon nag fu ñuy jàngale mbir mi métier du cinéma bu fi amoon xale yi amul liggéey yëpp dinañ dem jàngi métier mi ñi acteur ngay jàng ñi technique technicien ba ngay jàng même pousse bagage am le bagagiste sax war nañ ko mën a former nu muy gérer les bagages les instruments de tournage de cinéma mais ñu développer industrie cinématographique kon chômeur yu bari muy xale yuy góor yi ak ñu jigéen ñëpp dinañ ci war a mën a dugg ci production yi am ci dara waaye ñu góor ñi dinañ moytu agression beeg sàcc bi ñu jigéen ñi aussi dinañ moytu aussi eh, woyofal seen bopp ba ñu di leen ñàkkal fayda te jar ko nit dafa am valeur mais je ne sais pas il faut nag une politique de l'État dégg naa ñu koy mébét mais fësalaguñ ko mais ñi may interpellé muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen Grand Laye dama bëgg a jouer Grand Laye ma ne ko ndax ah danga ko mës a def loo ci a def mu ne ma non mosuma ko def da affaire bi ma neex rek ma ne ko loolu na mu ne ma lu ngeen ma jox rek ma ne ko non man gars yi pour ñu def ma lëgg Grand Laye dañoo yaakaar ne lii ngóor si mën na ko ñu woo Grand Laye sant ko te foo naa ne j'ai pas euh, euh, j'ai été à la hauteur je crois parce que nit moo waral sax coow yu topp Grand Laye alors mais loo doonul ak taalibe mënoo nekk ab sëriñam donc métier bu munti doon danga koy jàng maîtriser ko war ko mun a liggéeyee mu amal la njëriñ lu ko mooy boo ci amul grade bi wala benn niveau bi aussi payoor gu ñàkk fay da nga siy jël te du fekk si soxla. mu nekk rôle bi nga xamante ne dooy na waar torop d'habitude sénégalais booy jouer genre rôle yooyu sax dangay ngay génn ñu lay bañ ñi jéppi la ñu lay xas mais Grand Laye dafa génn sénégalais yi apprécier ko bés boobu noonu lan <laughs> ngeen nan ngeen def ba réussir loolu noonu parce que d'habitude sénégalais yi ñoom genre rôle yooyu moom moom c'est mort. ah soxna si man loolu yooyu yéen laa koy laaj de yéen ñuy seetaan parce que man defuma du li ñu ma santoon. moom laa jëfe personnage bi ma waroon incarné euh, un grand patron de presse diplômé de l'école des hautes études de communication écrivain en même temps journaliste donc bagage ba mu nga fa bind livre éthique ak déontologie ba sax Malick moom la jàng liir ko mu neex ko ba mu jàngi journalisme ba finalement mu fekk si ma looloo war a indi i le nom dafa liir lii dem ne moom Grand Laye moo idolam ba ñëw wut si fa liggéey ñu jël ko mais moom gëm na éthique et déontologie Grand Laye mi ko doon jàngale dem na ba mu yàgg gëmatu ko bii la gëm bii nag te boo ci amul lu doy foog nga njublan dugg ci njublaag xale ba moom la mu gëmoon rek moom la gëm ba li daaneel Grand Laye ba mu dugg nugu sin sax ci xale boobu la jógee muy Malick Ndiaye <laughs> moo fa def article bu doy waar ba euh, inspection générale d'État dem fa loxo mboot monsieur le ministre ak yeneen affaire yëf yi leer ah yat wa dal donc tu vois nga xam ne am na njëriñ mais lu tax Grand Laye euh, parce damay génn si mbedd mi mais vraiment ma gis cofeel gu nit ñi am ci man mooy li nga wax rek mais ma dama foogoon ne role bu kàccoor bi ma joué ci biir promotion canapé doxaan xale yi corruption sañse tiiteeru jaagar jaagar yi noos dóor ci whisky yeeg cigare beeg xam nga la belle vie te loolu euh, du du mooy li gën a rafet mais ak caay-caay la nga dunde ko ba pare génn nit ñi di la sopp man jaaxal na ma dama leen koy laaj ah xëy na yàlla moo ci jàpp mu woyof parce que waroon naa mën a génn ñu may yooxu mbaa ñu may saaga bandi bi woyu bi parfois sa njëkk paa yow yaay bandi ma ko non grand laay bandiwul de xale yi ñoo bandi paa bi dafa nandite rek wana paa bu nandite moom bu daje ay gone bu saay saay xam nga ay naxante la mais euh, li la koy may ci biti mooy euh, nga dal uniforme la bu ñu la sololoon ci biir mooy tur acteur ba nga jox liggéey bi ak xam mu dal ba ñëpp foog ne lii dëgg la te fiction la mais boo simee costume acteur bi ba del sa kër dongo ba nga nekkoon walla taalibe ba nga nekkoon walla góor yàlla ba nga nekkoon danga ca war a dellu parce que loolu mooy yow loolu mooy Mouhamed Touré ànd ak yar yiw ak teggin xam sa bopp xam àdduna parce que quand dootuma xale jaar naa fu bari dund expérience yu bari kon war naa xam lan mooy suma cër ce ne pas parce que dama feeñ benn yoon ñaar yoon télévision bi ku ci nekk bëgg a gis Grand Laye jigéen ñi naan man Grand Laye moom mooy takk même à l'étranger ah, tamit amul ñu nekk di di ran nii di ran ci paabu jantal bi nii ah <laughs> est amul jigéen yu nekk di ran tamit. <laughs> loolu <laughs> intimité mais mais mais mais grand laay instant bii nii moom am na ñu nga xamante ne ñu ngi lay woo chaque instant ñi di la message. non ay sopp la parce que xam nga dafa ñu bëgg cinéma. mais est-ce que nga xam ne pare nañu ne grand laay man daal yow laa bëgg nga takk ma daal. genre yooyu noonu amul day am de. soxna si ah jombul xëy na dina am. waaw mais da dama yaakaar dañuy kaf rek quoi dañuy fo ay tooñ la rek quoi xam nga bu ñu seetaan nit ki ci écran bi bu ñu dajeeg moom face to face euh, il faut ñu woon ko seenu cofeel donc mooy waral wax yooyu yëpp ko mais man euh, dama koy jàpp rek ne. ay fans la rek yoo xam ne gis nañ seen seen idol ñu bëgg a teg moom pour wax ko lu ko neex mu delloon lu ko neex foofu laa ko teg ba moo tax eh, ku ci ñëw ak noo ñëwee rek dama lay jàppe ni ma la war a jàppee man raar na nit ki ñëw utal si ma dama bëgg photo wala dama bëgg nangam nangam ba ci borom saret day gaare saret na grand laay dama bëgg photo ak yow ma taxaw photo mu dugg ci taxi i ça c'est le grand laay allo chéri woo jabaram paas ko maa yëpp grand laay non il faut ñu benn photo dama koy nangu même les hommes de tenue dama ñëw ci bërëb ñu war a dàq nit ñi oto bi ma indi ñëw ma ne eh ça c'est le grand la ma ne ko bàyyi mais booy man dama ñëw fii fan la ñuy gaare ah yooyu non amul problème ñu daal du ñuy bet kon may sant yàlla warul tax nag ma yëkkati mbagg may sant yàlla bu baax parce oraa bi nekk ci Grand Laye bu ma ko joxoon ba ma am vingt cinq ans kon faatu naa parce que duma ko attan damay daal di fuuy ba ci quarante ans bu ma daloon sax ma déconné man wóoru loolu wóor na ma mais avec l'âge que j'ai actuellement jaar fu bari xam lu bari ci àdduna te xam ne dal ak teey nit ku baax dafay nite nite mooy bu doomu aadama léegi man yenn wu ma grand laay bi yëgalu ma ko sax suma yaram wër na yàlla te gars yi dañ ma koy wax per soo gisee ñu bëgg la soo gisee ñu fan la soo gisee ñu sawar a da nga oyof dañuy gis yenn acteurs yoo xam ne fii ñu ngi ci télévision bi ñu di leen seen di leen wuti pour di leen nuyu ñu ñuy ñàkkal fayda wala ngay wax ak ñoom sax ñu ne waaw loolu la ma ne ko man loolu ñemewu ma ko waaw donc euh, may sant yàlla grand laay bi. du ma wax ne yàqal na ma dara mais dolli na ma lu bari cofeel bu bari bu doomu aadama yi am ci man de dama koy gis dañ ma koy témoigner et puis du jigéen rek góor ñi surtout mag ñi nag day daw suma yaram ma war a toogaat nag wéer xam ne ne laay comme ni ko soxna si yow laay yow <laughs> moom raay si laay yow moom moom beneen affaire da may toog ma ne góor gi mën naa mën a ko bin bin succès bi yàlla moo ne woon boo tolloo ci âge bi na ko def ci yow bul ko tiitaroo bul ko damoo am na ñu la fi jiit woon anañu am na ñu la fi jiite woon am lu mel noonu waaye téye ko nañ ko waroon téye donc loolu mbubb la rek boo soloon ci liggéey te xëy na it jombul ñu jox ma beneen rôle muy beneen mbubb moo war a sol su ma ko joxee axam jox ko gëddaam jombul mun na mel aussi comme ni grand laay bi mais du tax ma yenu ko déedéet ma romb naa loolu. comme ni ko waxee ah ci yeneen rôle est-ce que mën nañ xaar tamit grand laay ci yeneen production à part euh, idole bi mu nekk nii. pourquoi pas mais mënatuma dellu gannaaw ci ci acteur mm-hmm. retraite bi jot na damay gën a am jot sax. walaay wër na yàlla retraite bi sa jotoon na dañ maa jox euh, nu ñu koy waxee ti contrat pour mu terminer bi liggéey waaye âge de bi nga nit ki war a am pour pour jeexal administration romb naa ko contrat moo fi bàyyi dafay am nag parce que mbir maa ngi ci bopp bi mu ngi ci xol bi tey aussi mu ngi ci kàttan ki ba tey mun naa liggéey euh, mun naa ko def mais cinéma bi mu ngi bëgg jël lu bari parce que dañ may soxla en plein temps te dafay jafe ndax liggéey bi moom wax dul may xëy na lii moom bu ma ci pare woon dinaa ci mën a nag am beneen activité muy vraiment le cinéma l'art la culture euh, ma gën mun a am jot gën ko mën a jox gëdaam ak axam xëy na nag su boobaa dana nekk leneen parce que là je je je je je je je à être un bon acteur damay dégg gaana grand la star nga may leen xam nga leen mooy star non star nga mën ne ko non star turu anglais la mooy biddéew dëgg la mu ne waaw ma ne ko biddéew kon nag mooy luy tàkk di leer ñu ne waaw ma ne ko mais fii ci Sénégal amul star star planétaire benn la Youssou Ndour la c'est vrai mondialement reconnu star planétaire fii Youssou Ndour la moo fi mu mun a wax ne star la deuxième bi Sadio Mané meilleur footballeur au monde non je te dis la vérité man loolu laa yëg man gëw ma lan mooy star je peux être un bon acteur c'est une bonne vedette waaw j'ai rempli un mission parce que yëg naa ko ca ma jox ko gëddaam jox ko axam génne li ne ci man parce que loolu la laaj ma def ko ci fulla ak fayda moo tax mu indi résultat boobu mais taxul rek nga ngand ngand man star laa quoi di jaay naka su doon damay yor sama yet di dox kaan bi mais dama am arthrose boo amee yenn at yi ak sport bu ma daan def da ngay am problème mu ndigg ak problème mu genou boo toogee lu yàgg boo jóg da nit ki may ma loxo parfois di nga nekk foo xam ne doo gis ko ku la may loxo ma yor sama wet ñu ne day jaay bës <laughs> grand laay léegi yat la yor di waaye yow star la jàppe boppam ça me fait rire rien compris ñàkk maandute la c'est ça mais en tout cas su ma paree ci liggéey bi moom damay duggaat cinéma bi producteurs yi nag ñoo xam suñu amee rôle bu méngoog moom profil wala lu ñu yaakaar ne lii war naa ko mun def su ma demee bu ñu waxtaanee ba déggoo ma def ko yàgg nañ ma woo sax di ma jox ay mbir waaye parfois rôle bi moom dul intéressé lu tax du ma intéressé parce que au nga am ci woy boo génnee ci mbedd mi aw xas nga ci jële wala ay saaga loolu duma ma ko incarné wala bëgg la liggéey loolu liggéey boo xam ne feeñ la lu ko jar nga bëgg a siiw rek dama bëgg a fés comme ñenn ñi. duma ko def kon dama ci gis sama bopp ma nangu ko engage ko damay dem jusqu'au bout man bu ma la xasee ne waaw ba ba ñu xayma ko ci kayit li ma sartooyoo dama koy dox ba mu matee man loolu noonu la ma yàlla bindee damay jéem a jubal dama bugg dëggu bugguma fen te cër bi ma la jox bëgg naa nga delloo ma ko parce que nit ay garabam waaye nit ndaa ci boppam nit nite mooy garabam te ñu ni neen la amuñu ay béjjén amuñu leneen donc euh, ni nga bëgg ñu téye la noonu nga war a téye nit ki kooko jox mu delloo lu njukkal dafay yomb day woyof kon mbir mi ay comportement la ay attitude la ay yara ki teggin la ak ay valeur loolu la milieu bi laaj mais am na ñoo xam ne moomuñu ko jaar ci pour am bunt pour si wuti leneen moo leen ci dugal mooy ñiy faral di yàq mbir mi da di gis ci affaire bu baax après nga dégg leen ci soof fa su ma yéene loolu man gën a laay ma def loolu <laughs> am na solo ah yaakaar naa ne tamit euh, lu neex du doy damay bàyyi rek grand grand laay jox ñu lan mooy euh, projet wam ci mille 2020 bi ndax am na yeneen yoo xamante ne ñu ngi koy xaar à part idole bi ak ci liggéey bi mu nekk nii tamit lan lañ lan lay jagleel xale yi tamit ci liggéey bi mu nekk nii dañ koy bàyyi rek mu wax ñu. xale yi li ñu ma ci dénk nii du rek c'est une direction. nous sommes au moins vingt cinq agents bu liggéey bi jotee. ñii ñu ci daara yi ñii ñu ngi ci orphelin yi ñii ñu ngi ci femmes vulnérables yi xam nga euh, les enfants de la rue bari na kon kenn ku ne am nga sa mission donc loolu du ma ci jóg parce que pour man jaamu yàlla la toppatoo tuuti tànk yi yar leen aar leen ba musiba du daal ci ñoom mbugal du daal ci ñoom. parce ba nga nekkee xale bu ñu la aaruloon xëy na doo ak si fii lii suñu ay waajur defoon dinañ ko war a delloo ci xale yi pas ci sama doom rek mais képp kuy tuuti tànk boo gisee rek war nga ko jàpp ni sa doom jox ko axam ba mu sax mooy aar ko ko euh, ba mu mucc ci lépp luy lor man loolu dama koy wéyee benn euh, lii fii nag bu contrat bi jeexee maay moom sama bopp ku bëgg publicité boo ma soxlaa bu ñu waxtaanee bu ñu déggoo ma jox ko axam ba mat sëkk bu dee publicité photo la wala publicité sport la euh, bu dee cinéma bu dee rôle boo xam ne ni yëg naa ci sama bopp parce que li nga yëg sa bopp da ngay dem ba jeex loolu kenn du loo ko jàngal te day neex xëy na loolu moo dal ci idole bi j'ai beaucoup aimé le rôle et je l'ai bien interprété je crois moo indi buzz bi comme seen comme seen kër gi ngay wax. mais je suis promoteur culturel je aussi un ancien agent du ministère du tourisme donc xam naa luy tourisme xam naa luy musique parce que je suis manager de quelques groupes de jazz fii ki dëkk bi yooyu yeneen bagage la kon bu ma jëloon fii retraité aussi xam naa du ma dem rek naan maa ngi toog ki njowaan gi wala ma laal suma romb jaan abal ma njëganaay foofu ah non damay dem ci waar wi ci laay gën a am jot sax pour culture bi lépp li ma ci namm ak li ma ciy yëg te mu ma xam ne askan wi soxla na lu ni mel xale yi soxla nañ ko ma war ko joxalante ak ñoom loolu laay xaaraat ci après 2020 bi eh, di ñaan borom bi may ñu ci eh, ndam téyel ñu boppam xiir ñu ci lu baax te jagleel ñu daal ak yiw ba kenn du la jéppi parce que àdduna fi ne dafa jaxasoo nit ku ne war nga am ay ay valeur mooy yiw dal ami teggin am sutura am yërmande mën di ko jëfe mais nag takku takk sa ndigg tey liggéey ñàq jëriñu bañ a ñàkk fayda bañ a ñàkk fula nga gore am jom tey jëfe lu baax ci di ko xalaat loolu moom moo am solo donc xam naa ne waxtaan bi gudd na <laughs> mais dafa am solo am na solo waxtaan bi. ah comme yow gis nga ne am na solo macha allah tey sax da ngaa fekk sawaruma kon waxtaan bi doon a gën a neex. <laughs> gis nga comme ni ma leen ko waxee woon daanaan laa fi dalaloon tey ah muy ah, grand live nga xamante ne xam nañ ko ci série idol yaakaar naa ne waxtaan bi am na solo ah tey euh, ndaanaan lañ fi seet si woon tey muy grand live nga xamante ne. <laughs> Grand yi nga xam ne kenn dootu ko présenté ci biir Sénégal ah, mu fiy def liggéey bi nga xamante ne am na solo lool lool lool neew naa leen rek euh, man ak moom moom nii rek la fi nekk ak yéen fépp fu ndaanaa nekk rek la fa fekk si waxtaan ak yow sénégalais gën la xam ñëpp gën la ñëpp gën la découvrir daal tey nag euh, ci euh, cadrage bi Malick laa fi àndaloon euh, ak Amadou comme d'habitude rek à la présentation Ndiémé moo fi àndoon ak yéen tey si seen biir émission man ak moom di leen wax rek ne Dakar Buzz est disponible aussi sur Play Store ak Apple Store mën ngeen gaaw dem télécharger ko damay jaajëfal rek tamit ki nga xamante ne mooy Mami Traoré madame Sarr moo jaar si cheveux bi ah. kon numéro bi dina jaar si baaw écran bi di leen jox dig daje rek benn yoon incha allah ci biir Dakar Buzz